dikkati naa Sénégal de bu doon nit gu wopp la mën ngaa wax ni saa si tembe ma nga ca réanimation turbine ne kaay naan man bugaan gay dani nee na sunu métti kenn teguñu ko man mani la kudul président Macky Sall senegal mi ngi jànkonteel jafe-jafe yoo xam ni Sall ngaari lam tooro burge danañ ko ci joxoñ mooma mooma góor na maam ka jiite góor na maam nag du kenn kudul du Ba gay naan nañ leen joxoñ ndax métti gi nga xam ni Sénégal mi ngi koy jànkonteel saa si tembe ñooma ay difficulté yoo xam ne ci wàllu koom ci wàllu nekkin ñu jël nit ñi di tëj ràpp mel ni ku ne ci Lomé mbaa dugg ci kaso keneen lii ci boppam moo jaaduwul ci réew moo xam ni nee ñu Sénégal mu am liberte ñu war a respecté ak ak yelleefug doomu aadama yi waaye furaas moom géy naan ci yéenekaay bi xam nga réew moo xam ne koo mang fa ndax Sénégal loo ci manti dee git gisuma daanaka réew mu ko gën a riche lu ne loo xalaat ma ni la am na ci réew mi waaye suñuy njiit ci boppam ñoo nekk ay cuune defaruñu xanaa yàq wala yi duufal seeni gafa buñ taxawaloon ay politique yoo xam ne la ñu am daañu ko mën a sàmm waaye tam la nga xam ni moom nañ ko ñu fexe ba Sénégal jënd ko jëfandikoo ko yokk la nga xam ne moom moo di sunu am-am suñu meññeef suñu li ñuy bay bu ñu soobu woon foofu kese képp Sénégal rawi maasam ci Afrique bay laal yeneen dëkku Europe waaye fi mu ne réewum Sénégal ñu lool dul jàppe ay opposant direct nii su naan maan Bougane Gueye Dany ma ngi naan président Macky Sall teggil sa tànk fi nga ko teg baaxul l'indépendant yéen kaay naan maan moom jiital gëm sa bopp ma nga naan Sall ngaari lam tooro buur géde la nga war a njëkk def ci réew mi moom moo di daal di libérer Ousmane Sonko nu mu gën a gaawee le regard naan maan ma nga yor ay mis fil tuy tuy moom bugaan te jagleelu ko kenn ku dul président Sall maa ngi yedd nag naan Sall déglul ma wax la gis nga président Macky Sall sama maam waxoon na ma ñett yi bugaan géy danay wax de naan ko nee na ma woon boo meree deseel sa ngor yow président Macky Sall sama maam daan na ma wax naan maan boo tiitee deseel sa fit yow président makki Sall sama maam daan na ma wax naan boo ñàkkee deseel sa ngor naan koon kaay ma yedd la le naan ko génn réew mi dem faatu gën a leen toog ci réew mi l'info yéene kaay naan man ma ngay woote jàmm moom Bougane Gueye dani naan juróom benn weer jàpp juróom ñaar moo des ci élection yow sàll lu mënti xew ci réew mi dang ñuy abal ci abal googee bul yóbbaale kenn defar ay élection yoo xam ne ñëppay bokk nga la waaye président Macky Sall l'indépendant yéene kaay naan man ma nga ko koy ñaan ci njëkk manga nga naan kon Ousmane Sonko fi mu toll nii feebar na ba jaaxal aw askanam Ousmane Sonko wopp na ba askan jàpp ne bakkanam mi ngi ci xottu gerte yow président Macky Sall boo seetaanee ba Ousmane Sonko des ci say loxo dana metti te daa ko rëcc wala l'évidence yéen kaay naan maan moo taxit bugaan na woote jàmm naan kon président Macky Sall loo mënti def te génn woo Ousmane Sonko ma ne la defoo lenn l'exclusive yéen kaay naan maan ma ngay dar dari de di dàqi président Macky Sall ngir jot ko fàttewul Ousmane Sonko ma ngi koy ñaanal njëkk waaye tam ma ngay dal ci kaw Khalifa Ababacar Sall bugaan na nga naan seyel Pastef bi duddagu ci yoon jaay doole la ma nga naan jàpp gi ñuy jàpp doomu aadama yi te lan teg ci seen ndodd ne moom leen leen jàppee dëgërul du dëgg xiifal gi ma ni la nañ ko dakkal ci mim réew élection yoo xam ne ñëppay bokk dafa war a am ci réew mi détenu politique yi nan ci wax l'exclusive naan maan ma nga naan situation socio-économique bu réewum Sénégal métti na te ci wu nekk président Macky Sall ak bu Amadou Ba moo ñu ko teg sénégalais nekk ci njàqare goo xam ni maar day taali le point ak ci naan géyee nga naan leen talu leen lenn lu dul daw dàq ay opposant yoo xam ni defuñu leen dara waa grand place naan maan moo ci njekk ma nga naan kon ci njekk rek doxalal politique gu réew mi deux minutes pour lire l'essentiel naan maan Ousmane Bougane fàttewul Khalifa Babacar Sall le point yéen kaay ba mu ñaanalee njëkk ma nga naan lu toll ci junni juróom benn fukk ak benn ci ci réew mi jàpp gi mel ni tulleeg maale te lépp politique dong moo ko waral gaaya bañ ko mu ni leen xam ngeen Khalifa Babacar Sall warul waa yeewi askan wi kese askanuk réewum Sénégal ñëpp la daal di war waaye tam waru génération boo xam ne dañu jàppoon ne loo ci mënti am xam nan ne seen politique Afrique bu njëkk lajj na système bi baaxul dañ ko war a soppi moom xaaf nag bokk ci boobu le système bëgg mu doxaat ci réew mi duñu ko nangu te naan leen lii président ki Sall nekkee ci réew mi manu leen ko ko jiiñ bàyyi Amadou Ba mi nga xam ne mooy premier ministre am yor yor naan maan moom Bougane Gueye Dany daal ma ngay ñaan Sall ngaari lam tooro Bourguédé mu doon ab gentleman te libéré prisonniers yi réew mi ko di ñee naan maan coowal Ousmane Sonko dakkagul mbir mi daal daal dinay wër àdduna wërngal këpp ay avocat dugal ci seen loxo xeex bi mbootaayu xeet bi presse internationale bi daal di ciy dugal loxoom naan maan Ousmane Sonko daal di ximmaliko amuk fii ay ñoñam le témoin yéene kaay naan maan maître Ngagne Demba Touré di nay daw laqatu ji ca ngir bañ dig daal di koy jàpp mu daal di daw gàddaay niki ñi ko fi jiitu woon nañ ko defee woon 24 heures yéene kaay naan maan boobo Bassirou Diomaye Faye ci boppam ma nga des ca kaso ba wal fu ko di jee naan maan ma la ba ñu seeyalee parti Pastef ba tey terewul jàpp gaa ngi mel ni tulleeg maale ci réew mi bugaan gay dani ci vox populi naan la ma leen wax rek nguurug Macky Sall ci boppam seen ay gée lëndëm boobu wal fu ko di jee mag may xamal ne mbedd mi day ma ngay woote jàmm di woote ndaw yi ci dal waaye tam di woote ndaw yi ci ndorteelu safaar gii tey ñum bu boo téere ak yàlla wi jàng alxuraan ci fuñ mën a toll waaye tam soobu ci xasida yi moom sëriñ Muntaxa borom réeji di woote jàmm ak dal ci réewum Sénégal critique yéeni kaay naan man boobu jaxasoo am ci kër président Macky Sall lambaatu goo xam ni maa dey taali ci xool kan la ñuy tabb l'observateur naan man président Macky Sall de nee na noppi na ki mu tabb mi ngi ci xelam mi ngi ci boppam te fan yii dina ko wax critique yéeni kaay naan man en cas Kouba yeeg combine yi waaye tam yàqante der yi ma nga mel ni tuleeg maale Diouf Sarr nag fas yéene suufu bun Abdallah Jonn Mamadou Yayaaba bu ko gère géeja waaye naan leen mani la bi ci boppam moo war a dakk gaa génn di wax naan ñi ngi ànd ak diw wala ànd ak diw nañ ko dakkal ndax ko gère ñi ngi déglu président Macky Sall Sall ka mu tabb moom la ñuy àndal te ka mu mënti tabb ku ne yi département bu géeja waaye moom la ñuy ngemb ndax président Macky Sall la ñuy déglu ka mu mooy seen mbër ci élection présidentielle yi manipulation bi na dakk wax joo diw ngemb na diw gi na dakk ndax président Macky Sall nag mooy seen njiit kam leen tabal lañu war a àndal te looloy dëgg Moussa Fall bokk ci ñoom ci turbine yéen a kaay naan loo ci manti déggit waa Benno ak kur mën a tabb élection présidentielle yi moom mënuñu koo gañee ndax na coalition ba ci boppam moo daal di tas mer gaa bari le point yéen a kaay naan man ñi ngi waajal màggaluk Touba fas yéen nag saafara jafe-jafe ndox ca Touba moom Serigne Mountakha daal di activé naan man ña ngay def maintenance ba nekk ca courant ba waaye tam ca liggéeyu forage ya fa nga ak taataa ndox yi sori ñu daal di ci wutug saafara daaru mar naan la teree fëkk forage ba ñu daal di koy liggéey lay jafe-jafey ndox ca ndaam ñu daal di koy saafara ca kër ñang ak ndaamaatu yit yéen kaay bi naan maan Touba ca kanam ma nga ca diggam ak ofoor ñuy xool nees def ba Touba du am jafe-jafey ndox ci màggal gi tribune yéen kaay naan maan jafe-jafe kay jugul ci réewum Sénégal yéen kaay des média bi naan maan ca cité kër góor gi benn ingénieur ci boppam moo bëggoon rey papa ji saa si tembe papa jàng ci réanimation le peuple quotidien naan maan maman kundul ëmb na la ñuy wax amul ba ñu ko fekkee ma nga doon génne deret libération yéen mel ni ku naan ko déet moom mama kundul ci boppam moo xamal enquêteurs yi ne leen mësta ëmb boroom këram ak rakku boroom këram ñi defoon génn crime la bëggoon tiiñal libération naan man waaye wax jooju sax du dëgg ndax enquêteurs yi ndax xam nañ ne moom mama ci boppam dafa njëkk njortu ne dafa ëmb wax ko jëkkëram lii ya tax mu jël ay morceau def ci biiram ba mu sakkan doon wax ni dafa ëmb soxna sa nga xam ni moo woote woon di wax ni mama feeñ na kastoor ndekete xaritam benn bakkan la xale bu jigéen ba ci boppam libération ne moo fat faatoon mama këram ca Castor jàpp nañ ko ka génnoon ca site ya di dëggal jàpp gi ak ëmbug mama gi it ma nga woon ca Kuuba jàpp nañ ko xale bu góor ba jotoon ñeenti junni ngir bokk ca Kuuba doon dëggalit jàpp nañ ko libération yéen kaay naan maan pour débat bi jeex gynécologue bi ci boppam moo xamle ni moom mama mësta wasin l'observateur naan maan fii la réew mi toll ak lu mën a am mama wax na dëgg enquêteurs yi